fii ci grande mosquée bu Ndakaaru ci bésu dibéer gi yem ak euh, fukki fan ci weeru juillet ci atum 2022 njiitu réew mi président de la république Macky Sall ñëw na julli si julli tabaski gannaaw ñaari at yu nga xamante ni toog nañu ko te defuñu li nu mel ndax li nga xamante ni moo di mbas mi lim fi jaaroon. Allahu akbar. santaat suñu borom nag te dellu ci lim ñu digal fu imaam waxe ndax lislaam dëgg la diine la waaye itam ay valeur la te dafa am valeur de civilisation islamique ci réew moo xam ne majorité bi ay jullit lañu war nañ di bàyyi xel donte ci république laïque la ñu nekk laïcité nag du contre diine waaye mooy en tout cas ci doxalinu état bi laïcité maanaam règle yi loi tëral moom la ñuy doxee waaye nag suñuy valeur islamique wala valeur de chrétienté pour ñuy catholique war nañ di ko mën di dundee ci seen dundin fii ci biir réew mi bokk na si muy bëgg fonk doomu aadama sopp sa nawle respecté sa nawle loolu diine boo mënti dem ci àdduna bi da nga fekk valeur yooyu ñu koy ñu koy wane. ci xutbaam imam ratib bu grande mosquée bu Ndakaaru El Hadj Aliou ñëwaat na ci li nga xamante ni moom moo sabab bésu tabaski wax lépp lu nga xamante ni mooy jaar-jaar bi ak li nga xamante ni moo aju ci sacrifice yonanti Ibrahima ci noonu nag li nga xamante ni aju ci wàll woowu wax na lu bari ci lu jëm ci wàllu valeur yi nga xamante ni moom la lislaam diiney lislaam di woote. imaam wax na ko dañu bàyyi xel ci jikko yooyu la te yaakaar naa ni war nañ mën bu ñu gisee lu baax wax bu ñu gisee lu baaxul suñ ko mënul dénoncer ñu màndu si waaye réew warul di def la promotion simplement lu bon loolu réew mu koy def itam yaakaar naa ne sa mujj du rafet. ci atum ren ji nag nga xamante ni lañuy ñuy tabaski dafa tombe crise économique bu nga xamante ni bu jéggi dayu la bu dal si àdduna bi yëpp rawatina réewu Afrique yi crise boobee nag li ko sabab moo di guerre ba ci Ukraine noonu nag njiitu réew mi président de la Sall mu ngi ñaax ñi nga xamante ni ñoo seex mbir mi ñu toog waxtaan ngir jàmm mën a am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 te suñuy koom-koom attanul li ngeen ñu teg. beneen pàcc ci waxtaan wi nga xamante ni président Macky Sall amal na ko ak askan wi gannaaw julli tabaski bu tey ji lépp li nga xamante ni aju na ci wàllum campagne électorale bi ñuy door dibeer gi ñu tamit président Macky Sall di ñaax ñi nga xamante ni ñoo nekk si langue politique bi ndax campagne électorale bi liñ ci bëgg moo di jàmm ak salaam te itam ñëpp sartoog